سبحانه من له ولا عليه قضاء وأنتم أبناء سبيل وأوزنتم كل يوم رحيل فاتقوا خير الزاد التقوى وزاد mbokk àddina mbokk internet yi ñu ngi fii ci Koungheul nekk ci euh, jumaa ju mag ju nekk fii mën nañ ko wax ci yoonu Koungheul Socé bi ki ma jàkkaarloo nag di laaj xaaj ci ñi nga xam ne tey yàlla dénk na ko loo xam ne wala bokk na ci ñu tax lii tey am fii ci Koungheul moom nag euh, bu mu ko defee léegi ay at la xam naa dana si ñëw wax ñu lu tax moom ñeneen ñu nekk nii ci mooy imaamu ratib bu jumaa ji ñi nekk ak ñi ñu àndal ñu fekk leen fii mais li tax tax ñu ñëw fii mooy que ne jumaa ji ñird mu nekk ci koñ bi am lu solo mais am lu xam ne dañ ko ci boole woon te léegi amagul muy daara ji mag jooju noonu war na am bu ngay jumaa ji kii nag ñu nekkal di alaaji dama dama koy nuyu alaaji ñu ngi leen nuyu jërëjëf euh, Makhtar man la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah, euh, ah. di la fay nuyoo di fay bokk yëpp nuyoo ci bis bu tedd bi euh, di bisu ajjuma bu baax a baax yow tam ñu ngi nangu ziare ma ko waxee rek si jumaa ju mag ji boo ñu si ñëwaatal parce que projet bi yàlla def na lépp sa loxo la jaar ba nga def ko fii implanté ko fii ci koñ bi mais dafa am lu ci waroon a ànd lu am lu solo muy lu mel ni daar ak yeneen ak yeneen tey nag balaa ñu ñëw ci imam bi xam ne mu defal ñaan wax moom mi xam ne moom la fi yàlla xam ne yaa sumb lii nii lan nga ñu mën a ji ci manquement yoo xam ne tey bëgg nga mu nekk kuy jullit ku nekk rek wala ci mën a jàppale ba loolu war a mën a nekk waaw jërëjëf Makhtar li may ñaan di ko ñaan julliti yàlla yi nga xam ne yàlla dénk na leen dara wala yàlla dénk leen ndox yoo xam ne mën nañu cee dimbale wala mën mooy ñu jàppale ñu ba ñu taxawal daara jooju nga xam ne dañ ko lëbëtoon ndax fii ci complexe bi nga xam ne dañ ko taxawal maanaam liñ xalaatoon mooy def jumaa fii def daara fële ci wet ga ak ay dëkkuwaay yoo xam ne nii ñi nga xam ne ñooy jànge ci daara ji fa la ñuy dëkkee te itam ñu fexe ba barab bi ñu producturé ko ba nga xam ne lépp benn buntu lay nekk Euh, lépp loo xam ne dafay jumtuwaay yoo xam dañ ko soxla jumtuwaay yoo xam ne dafa dëppoo jamono dañ ko fi bëgg a def waaye yëpp daal mu ngi sooxee te yombagu ci ñun mhm. moo tax ñu ngi tàllal suñu loxo julliti yàlla yi di tàllal suñu loxo ñi nga xam ne yàlla jox na ay cër mhm. te ñu mën ñoo dimbali te ñu man a def te yàlla tax mhm. te yàlla naw lool fépp koo xam ne daf laa jox dara nga koy delloowaat ci moom yàlla naw lool ñu ngi ñaan yàlla daal ak di ko ñaan bopp yooyu moo xam muy koo xam ne da ngaa jiitee ne département Koungheul moo xam nga ne ci moo xam foo mën a nekk moo xam cër bu yàlla jox la cëru alal ñu ngi lay ñaan nga dugal sa loxo jàppale ni ñu mën taxawal daara ji pour daara ji taxaw daara ji daal suñu yittee la mhm. bëgg nañ daal daara ji taxaw ndax daara ji dafa bokkoon moom mhm. ñu ngi ñaan ñu appel boobu daal ñëpp mhm. muy lu am solo waaw comme ma ko waxee rek euh, loolu appel boobu moo moo ñu gën a tax sax ñëw fii pour ñu mën ko lancé fii fekke fii ànd ceeg imaam bi ak ñëpp ñi xam ne ñu ci koñ bi mais tey euh, dañu gis ne lu loolu rek seulement war mu gën a mën a kii wala am na yeneen euh, loo xam ne koñ bi soxla na ko si jàkk ji loo xam ne tey yow mi xam ne tey yoroon kàddu gi mën ko yëkkati wala fan la war a a jaarale benn ndimbal boo xam ne tey a ñëw fii ñu mën def loolu xam ne ku defal rek sa bopp nga defal a jaar a def ndimbal loo xam ne na ñëw fii ñu waaw jërëjëf Makhtar euh, fii li fi aaju bëri na li fi soxla bëri na wax naa ne daara ji matagul daara ji ak ay jumtuwaayam daara ji ak ay dëkkuwaayam Euh, barab bi dafa yaatu dañ ko wala clôturer mu nekk benn buntu. war na am ndox ci biir war na am courant ci biir yooyu yëpp ñu ngi tàllal loxo julliti yàlla yi ñu ngi leen ci tàllal loxo ñu jàppale fii lu ñu ci mën a jàppalee rek nañu ci jàppalee ñu waxuñ ne nañu nit defal lii waaye na nit defal lii te yàlla tax maanaam lu fu waaye mën a def ci barab bi daal boo jàppal ne defal loo ko Alaaji Malick Cissé mii mhm. defal loo ko imaam defal defaloo ko askan wi sa bopp nga ko defal mhm. ndax wa man amila saalihan fali nafsi yi mhm. képp ku def lu baax sa bopp mhm. ku def leneen nit sa bopp rek waaw ndax yàlla nag moo ne masalu ladina yunfiquna amwaalahum fi xam ne da leen a jox dara ñu ci compaat di delloowaat te yàlla tax di ko def fi sabilillahi moo tax may lancé appel di ñaan ñi nga xam ne yàlla dégg na leen dara dañu bëgg jaamu yàlla du alaaji Malick Cissé la ñuy jox waaye dañuy jaamu yàlla la barab baa ngi nii lépp lu fi waay bëgg a def soo ñu woowee boo ñëwee ñu wane la barab baa ngi nii lii lañ bëgg daara ji fii lañ ko bëggee miir yi fii lañ ko bëggee courant fii lañ ko bëggee loo ci mën a def moo xam muy éli nga nga xam ne dañ la dénk benn cër boo xam ne cër nguur la moo xam muy ko yàlla barkeel la nga yor dara loo ci bëgg a def boo yegsee ba ñu laajee dañ la ko wax soo ñu contacté yi par da nga fa fekk diw sàngam wala da nga fa fekk diw sàngam dañ la boolee koo xam ne daal ñu dañ la indi ci place bi defal ñu loolu jërëjëf El Hadji Malick Cissé maa appel surtout autorités yi nga ne ñoo nekk au niveau du département de képp ku jullit nekk ci àdduna rek conseil départemental. Okay. encore képp ku julli rek di ñoom waaw mboolem kuy responsable politique nekk ci département Koungheul maa ngi lay woo moo xam ku mën a maa ngi lay moo xam muy Adja Soso Diop doon ñun maa ngi leen jàppale la war a doon rawatina nag jàppale waa diine ji mm-hmm. social bi social année sociale la te social mu ngi njëkkee ci néegu yàlla yi muy jàkk ji xam ne soxla na ko jumaa ji xam ne soxla na ko kon lépp na si ñëpp jàpp seen loxo képp ku jullit foo mën a nekk liir vidéo bi déglu déglu li El Hadj Malick Sy lu loo mën na nga ko ci def parce que loo def rek si xam a wax tey ci li xam ne moom la El Hadj Malick wax ci jumaa xam ne tey ndimbal la lu xam ne néegu yàlla la képp ku ci def sa bopp nga defal la nga ban message nga am pour lancer ko ñi xam ne tey war nañ si mën a jàpp bañ bokk jumaa ji bokk si jumaa yi xam ne lii mbébatoon ci jumaa ñu mën ko fi am asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mm-hmm. yaa Maxtaar mm-hmm. ñu ngi sant yàlla di gërëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm euh, alaaji Malick Cissé moom mi nga xam ne ne tey mooy bunt maanaam barab bii mën a taxaw mhm. waaye yàlla baaxee na ko itam mu jaaree ko fu mu ko war a jaare bi màngoor mbay mhm. kooku itam mu wan ko ne ko Imaam Kayre moom tay man maay naayibam moom daf fi nekkul mu nga mu nga Touba ah, moom moo jiite place bi hmm. man maay naayiba ma toog ci man Ousmane Gueye lañ may wax Ousmane Gueye waaw Ousmane Gueye hmm. wante barab bi lépp lu nga xam ne ne Xaaj Malick tawatal na la ko fi hmm. ci wàllu maanaam yeggali tabax gi ci maanaam tabax maanaam eh, jàngukaay bi ndax alhamdulilahi rabbil alamin nag xale bi fay jàngale ñaari at yi yëpp mu ngi testé di wane li muy jàngale waaye sant yàlla moo xale yi ñu ngi yokk bu baax a baax mm-hmm. ndax jàngale bu rafet jàng bu jot ndax xale bi xale bi xaaf xale la waaye xaafisul alquran la mhm. moom nga doon dégg fii muy jàng foofu tibb ci alquran dana mu gàggante la wéy wéy mhm. xale la waaye ku a jàngale la mhm. njàngale bi rafet na lool barab bi daal bëgg nañ ku ñu si jàppale te yàlla tax moo ko mantu doon mooy autorisé muy jullit rek jullit moo nga xam ne nii yàlla jox na ko cër wala jox na ko tiraanga addina te mu man a def lenn ci ci ci wàllu yàlla man si jox yàlla lenn ñi koy ñàkk sàkku ñaan pour ñu jàppale ñu si barab bi ba luñ si naal si naal bi mën a yegg ñu tabax jàngukaay bi miiree ko soxla nañ fi courant moom dara matagul daanaka. dara matagul waaw dara matagul. Mm-hmm. mais bu ni ni gis nga sax euh, euh, kii bi rajo bi. Mm-hmm. daanaka dafa xaw am paan. Mm-hmm. waaw dafa xaw am paan. lu ko def mooy ne sécurité amut fi. Mhm. benn waaye ñëwoon fii nii guddi ñëw xar euh, kii bi yàq fi yàq bu rëy dem. Mhm. ba léegi na fu ni nii mm, rajo bi dafa xaw a am sikk. loolu loolu ñu ngi koy tawat. bëccëg bi rek lay def safara mais guddi kenn du bu jotee kenn kenn du nodd. kenn du nodd gaye kenn du nodd bëgg nañ ku ñu si jàppale te yàlla tax. incha allah yaa euh, mbokk yi nii rek la dañ koy waxee émission découverte wala leen li xam ne war ngeen ci mën a jàpp fii nag bokk na ci suñu war a jàpp parce que alaaji Malick Cissé bi muy defar lii da ko defaroon ngir ut ci yàlla ànd ceeg ay nitam ba yàlla defar ko lii mais dafa am loo xam ne mbëbatoon na ko tu mu dëcc muy daara ji ak courant beeg ndox bi mbokk jullit yi yéen ñi defar ngir yàlla yéen ñi ut ngir yàlla te bëgg leen kenn wax ko mbir maa ngi noonu ku gis ñi ma taxawal xam ne ne mbir mi am na lu am na mu soxla li mu soxla nag mooy jàppale ñu ma sëkk kon jàpp leen woo ci ñii ku ko alaaji Malick Cissé maa ngi oo ci imaam boo ñëwee dañ la jaar fi nga war a jaar loo loo fi dugal lu nekk rek ci kër gi lay jëm te boobaa loo fi def lu nekk rek ci jéew lay ñëwaat comme na ma koy parce néegu yàlla la sëñ bi kanaa ñi bàyyi la si fii tey yàlla ñu defal ñu ko balaa ay ay bés yu néew am ay nit yu baax yu man a def di jël seen alal def ko fi ba lañ bëgg ci kër gi jumaa ji yàlla may ñu bismillah العظيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تفتح لنا في أبواب الرضا وتيسير وأسابنا والخيرات كلها وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير والفقر والهم والغم وضيق والمسوى والأمراض